salaamaaleykum mbokku internet yi jeudi 4 novembre 2021 ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi dooree ko groupe Futur Média record yéenekaay la ñuy jël Cheikh Ahmadou Bamba Dieng di jongante ca Marseille la fësal ca xët wu njëkk wa ñoom ñii di waa Marseille nag Ligue Europa bi ba mu dooree ba léegi ñu ci benn ndam match nul la ñu tegle di ko am ñett la ñu ca am journal bi nag samp na laaj nee na tey jii xanaa Marseille dina gagné Lazio de Rome ma ngay amee fële ca Vélodrome match boobee 20 heures lay commencé waaye yeneen doomu Sénégal yi Europa ñu ngi ci ku ci mel ni Crépin Diatta moom mi ak waa Monaco tey PSV la ñuy dalal ñii di waa Naples bu Kalidou Koulibaly ñoom li ñuy wëri muy ndam ndam loolee nag buñ ko amee dina tax ñu mën a toog toog bu jekk ca première place ba kii di Sadio Mané nag démb wane na boppam fële ca Anfield ndax match bi doon dox ci diggante Liverpool ak Atlético de Madrid moom mii di Sadio Mané dugal na ca bii bu rëy a rëy bii boobu sax day tax ñii di waa Liverpool qualifié ca huitième de finale ñu jugee record yéene jël réew mi sport réew mi sport sport Sadio Mané la fësal ca xët wu njëkk wa ñoom ñii di waa Liverpool nag am nañu ndam qualifié nañu ca huitième de finale waaye doomu ndeyam bii di Idrissa Gana Gueye ak waa Paris ñoom Allemagne la demoon waaye match nul la am ñoom ñii di waa Paris journal bi ñëw na ci but soccer tournoi intercontinental ma ngay amee fële ca Qatar Sénégal nag ginnaaw bi mu dóoree kii di Portugal démb nag dóor na Espagne 7-6 kon nag Sénégal ma ngay doxal nañu ko ñaanal waaye la mu ngi amee fii lay door Sénégal mi ngi bokk poule A bokk fa ak Gambie ak Côte d'Ivoire kon sunu doom yi nga xamante ni ñoo nga ca CEDEAO ba ñu ngi leen di ñaanal ndam li bañ a génn Sénégal te ñu nekk Dakar it jege ko ñu dem seetaan ngir mën a ñaax sunu ndaw ñu jóge Sénégal wutali France fekk fa l'équipe l'équipe ma nga fësal waa Paris rawatina ki duble muy Wijnaldum mi waaye duble boobee mu doublé sax taxul mu doy ndax ñii di waa Paris kat dañoo def match nul fële ci Allemagne RB lañ doon jàkkaar muy première palace bi ñàkk nañu ko ndax siti moo ne fa fax toog waaye journal bi nee na ah góorgóorlu leen de ñàkk ngeen première palace bi de waaye qualifié mën ngeen koo def ba léegi ndax City moo ne ca bopp ba am neuf poñ Paris topp ca am huit poñ kii di. club Bruges moom moo nekk ci troisième place ba waaye moom ñeenti poñ képp la am kon nag Paris première place bi mën na koo ñàkk waaye qualifié moom du jafe lool ci moom. ñu jugee France wutali Londres fekk fa Star Sport Star Sport waa Liverpool yi la fësal ci xët wu njëkk wa rawatina kii di Diogo Jota ñoom kat démb seen yaram dafa tàng jër ñoom waa Liverpool ndax kii di Atlético de Madrid première mi-temps lañ ko lijjanti tege ko ne ñoom ñii di waa Liverpool nag tiitoon nañu lool ndax bi ñu tiraasee poule de la mort la ñu bokkoon loolee nag ñoom ñoom tontu nañu ñi leen doon tiital ñoom ñii di waa Liverpool quatre match la ñu jongante am douze points première place bi duñ ko xëccoo ak kenn jël nañu ko waaye wujjëm yi di waa Manchester City ñoom it démb doxanto nañ ci club Bruges ñeenti bal ci benn lañ ko dóor waaye ñii di waa Manchester City nag ñoom li ñu bëgg du lenn lu dul match bii di ñëw Paris lañ war a am buñ ci amee benn poñ képp dañuñ qualifié ci huitième de finale ñu jugee Angleterre wutali Espagne wàcc ca capitale ba di Madrid fekk fa aas yéenekaay Benzema mille Benzema nag dugg na ci taarix ndax mille bii yi nga xamante ni Real ci soirée européen bi maanaam Ligue Europa Ligue des champions moom mii moo ko dugal loole nag bi Real di jàkkaarloo ak Shakhtar Donetsk la démb ñaari bii la dugal moom mii di Karim Benzema waaye Vinicius bi ñu gis Vinicius bu décisif la def na ñaari passe décisive wujju Real Madrid yi di Atlético de Madrid ñoom ñaar la ñuy jooy muy lan défense bu bon yées lool bari ay erreur ak arbitre boo xamante ni la mu doon arbitré dara baaxu ci loole la ñu wax ñoom ñii di waa Atlético de Madrid ndax kat ñoom Felipe dañ koo teel a ruus ba football nañu cinquante trois minutes yoo xamante ni à dix lañ doon football ak Liverpool. ñu jugee aas yéene kaay jël marka yéene kaay benze mille mille nag mooy junne junney bit Real de Madrid am na ko ci compétition européen moo xam Ligue des champions la wala Ligue Europa. loole nag guddi gu neex la waa Real de Madrid am loole tamit kii di Benzema dafa doublé yemul ci dugal benn ñaar la dugal. waaye kii di Benzema ak Vinicius nag seen ànd ba ma ngay wéy di gën a dëgër ndax kat bët bu set ñuy gën di déggoo di gën a doxal indi njaay ja daal neex na lool ci ñoom ñaar ñooñee ñu jugee Madrid dem Barcelone fekk fa Mundo Deportivo Mundo Deportivo Xavi la fësal ca xët wu njëkk wa moom mii di Xavi démb match bi Alsaat amoon bi muy jàk bi mu jeexee muy jàkkaarloo ak taskatu xibaar ya xam lene ne moom mii delluwaat fële ca Barcelone ci bëgg-bëggam yi la bokk loole nag nee na man ak clubu Barcelone bi nañu waaye ci ñaari club yi lu dese la desee muy Alsaat ak Barcelone loole nag su amee ba ñu d'accord man mii ma dellu ca doon loolee dina ma neex lool ndax Xavi ba match ba jeexee dafa mel ni da doon tàggatoo ak supporteru alsaad yi kon delluwaat ca Barcelone bëgg na ko waaye kii di Juan Laporta ña mu yónni fële ca Qatar la mu leen wax du lenn lu dul bu ngeen di dellu si fii ci Barcelone li ma bëgg moo di ngeen ànd ak Xavi ñëw fii ci Barcelone ñu jóge mundoo Deportivo jël Esport Xavi mi Barcelone bëgg mu doon kot sa moom la dalal tey waxtaan ak moom waxtaan wu yaatu waaye Xavi nee na mbégte mi waa Barcelone doon bég ak ay supporteram loole la ñu bëgg a dellisu fii delloo si fii ci Barcelone ndax kat Barça ku ko xam-xam ne daan na bégal ay supporteram moom mii di Xavi nag nee na bëgg-bëggam du lenn lu dul dellu ca Barcelone ndax bëgg na Barcelone lool te jamono jii benn bëgg-bëgg la am muy coach ca Barcelone moom mii di Xavi nag nee na man ak Barcelone jubo am na ci côté yëpp fi mu desee kay mooy ci ñaari club yi waaye maa ngi ñaan jubo am ci fàttali kii di Xavi dafa signé contrat ak waa Alsat Alsat googee ak Xavi seen contrat deux mille vingt trois la war a jeex. li leen li tax nag waxtaan ba mënul yemb ba léegi ñii di waa Alsaat dañoo wax waa Barcelone ne leen li ko fi téye mooy contrat bi fay leen ko contrat boobee buñ ko xayma ci 10 millions d'euros la toll loolee la Barça war a jox Alsaat waaye nag Barcelone économiquement jamono jii dafa amul xaalis moo tax waxtaan ba yàgg lool loolee nag bu yembee rek Xavi day ñëw fële ca Barcelone. ñu jugee Espagne wutali li wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Inter bu Inzaghi bi nag Inter bu baax la bu am fulla ca la muy def la. ndax kat ci Ligue des champions daaw fi Inter tolloon ren ji weesu na ko ndax li mu am ren ci ay poñ daaw amu ko woon kon qualification am ci huitième de finale ci ay tànkam la nekk ngir ñu mën a qualifier démb dafa am ndam lu ama am solo fële ca Shérif ñetti bal ci benn la ko dóor moom mii di Inter bu Inzaghi mbokkam yi di waa AC nag ñoom ñu ngi ci ay jafe-jafe ndax ñoom démb dañoo dalal kii di Porto nil ak moom 1 loole sax tax na ñoom ñoo jël ndaare waaye nag journal bi nee na góorgóorlu leen match bii di ñëw Madrid ngeen war a fekke Atlético moo jël troisième bu ngeen ko gañee nag mën ngeen am yaakaar qualifié ñu jógee Corriere dello Sport dem Torino fekk fa Tuttosport Juve ak AC Milan ñoo fa nekk waaye kenn ku ne ak sa bëgg-bëgg ñii di waa Juve nag la ca seen xel ma mooy bàyyi scudetto bi ndax ñoom xam nañ ne joti ko du yomb ndax 16 poñ moo dox seen diggante ak ñaar ña nekk ca kaw muy AC Milan ak Naples loole nag tax na nee nañu ñoom ñii di waa li ñu am lépp dañ ko bëgg a def ci Ligue des bi ndax jël wala ñu sori ca lool ñii di waa AC nag démb bi ñu amee match nul ak Porto xam nañ ne qualifié ca huitième de finale dina jafe lool loolee tax na ñoom ñii di waa AC Milan la ñu bëgg ñoom moo di concentré wu ci scudetto bi maanaam Serie aba ba ca championnat ba di doxal ñoom nag am nañ fa taxawaay bu baax ñii di waa Juve nag ci Ligue des Champions ñeenti match la ñu am ñeenti ndam xam nañ ne foofe moom baax na waaye Serie A moom doxul dara. ñu jugee Torino wutali Milan fekk fa Gazzetta dello Sport benn Milan bi nag ma ngay doxal ci Ligue des champions bi muy Inter bu Inzaghi moom kat démb am na ndam lu ama am solo ndam loole nag baax na lool ci taxawaayam ëllëg pour qualifier huitième de finale moom nag match bii di ñëw Shakhtar Donetsk lay dalal bu ko dóoree rek day qualifier ñii di waa AC Milan nag pour ñu qualifier dina jafe lool ndax ñoom benn poñ képp lañ am te ñu ngi ci quatrième journée kon ñoom pour ñu qualifier dina jafe lool kon nag ñii ñi ngay neexle ñii neexlewuñu fële ca muy AC Milan neexlewul waaye Inter moom ma ngay doxal fële